loolee nga xam ne moom lañ ko tontu woon taxul moom Ousmane Sonko mu bàyyi ndax ni ki démb ca diwaanu Louga la mu waxoon lépp daf ko waxaata nee na la mu waxoon tey la ko a wax coalition yi nga xam ne moo nekk ci opposition bi bu passé coalition Yewwi ak wàllu Sénégal ay coalition lañ yoo xam ne Macky Sall moo leen créé ndax ay nit ñoo xam ne suba ngoon gu dég ba cëkk ci Ousmane Sonko rek la ñuy wax du ñu wax lenn ci Macky Sall ñooñee nag la ñuy leen nag su ngeen demee encaisse maanaam na ngeen mën a souffrir a kaay gii di li quotidien ñu xëy xam ne mooy tête de liste coalition wàllu Sénégal ci département bu Mbacké moom nag daal nay dëggal kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko wax na ko nee na Macky Sall moo créé coalition yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi ngir nag ñu amal ay rubé Ousmane Sonko nee il faut savoir encaisser et souffrir noonu la ko bindee ci biir journal bi Ousmane Sonko nee na képp koo xam ne votel nga coalition yi nekk ci opposition bi bu mooy Yewwi ak wàllu na leer na Macky Sall nga votel Benno Bokk Yaakaar nga votel ci yéen kaay gi di Rewmi Quotidien Pape na benn adversaire rek muy Benno Bokk Yaakaar l'observateur nee bi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar la doon ko amal ci diwaanu Médina ci ak pëccëxoo fiasco a kaay gi nga xam ne ñoo fa doon defante doon sànnantey xeer xeex bu métte métti moo fa am yéen a kaay gi de Libération nee li am ba des sall meeting bi Benno Bokk Yaakaar doon amal ci gi di bés bi xëy diñu xibaar nan ñu sa diwaanu Ziguinchor tey ji débat bu rëy am na fa diggante Guy Marius mi nga xam ne mooy nekk tête de liste sa département bu Ziguinchor coalition Askan Wi ak Victorine dey mi nga xam ne mooy tête de se Benno Bokk Yaakaar ci département bu Ziguinchor ñoom ñaar tey ji dañuy janoo askan wi di leen laaj maanaam dañuy débat ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na campagne électorale bi bëri na ci ñoo xam ne àndoon nañu ak Macky sala doon ko défendre tey ji gisuñu kenn koo xam ne génn na di ko défendre yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Mary Teuw Niane mi nga xam ne moo nekkoon PCA bu Petrosen daal nay démissionné tekki na a kaay gi di L'Observateur nee na Mary Teuw Niane Mansour Faye tàllal na ko loxo ba tey Mary Teuw Niane wa waaye nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak Mary Teuw Niane di ñoom nee na ñu ko demal jàppale ci coalition Yewwi Askan Wi yéen a kaay gi de la Tribune loo xam ne jëm na ci wàllum ñetteelu a kaay gi di bés bi nee na Mary bi mu tekkee ndombal tànkama maanaam ci Petrosen dafa daal woote ñu votel coalition Yewwi Askan Wi yéen a kaay di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom nag nee na bi Aminata Touré Ousmane Sonko na joxe position ma ci lu jëm ci borom ñaari tur moom moom Mamadou Lamine Diallo ci journal bi di Walf Fadjri yëmul foofu nee na waa Benno Bokk Yaakaar bu leen neexee nañu andi Amadou Ba wala ñu andi Abdoulaye Diouf Sarr wala ñu andi Cheikh Tidiane Gadio wala ñu andi Abdoulaye Baldé ma débattre ak ñooma ci lu jëm ci wàllum économie bu leen neexee tamit ci lu ci wàllum miina yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu président Mbagnick Diop jamono ji ma ngi waaj bu baax a baax African Leadership Awards version internationale corridora juróomi fan ci weeru novembre atum 2022 la ñu koy amal ca diwaanu recevoir ko loole nag tax na consul général bu Sénégal bi nekk New York ni ki démb ci altine ji daan na koy recevoir yéen kaay gi de la sa askan wi yeewoo Kër Masara ci inondation yi ñoom nag sonn nañu ba mara day taale ñoo ngi sàkku liggéey ñu daal di koy yeggale yéen kaay gi de la Soleil nee na aéroport bu Ziguinchor liggéey ya door ne yi nekk seen o bëri na ci ñoo xam ne dañoo demub gerew waaye am na si ñetti syndicat yoo xam ne ñoom bokkuñu ci gerew bi yéen kaay gi di